yëngootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safar terootina sunu deret yëngootina sunuy sidit yëngootina bu ñi jóg di way sang be abari ja la ilaha illa la ya ram la ilaha illa la أبو رجال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله أبو رجال لا إله إلا الله يا رب لا إله إلا الله laa ilaaha illallah yaa rab laa ilaaha illallah laa ilaaha illallah yaa rab laa ilaaha illallah aboori jaa laa ilaaha illallah yaa rab aboori jaa laa ilaaha illallah yaa rab laa ilaha illallah laa ilaha illallah yaaram laa ilaha illallah dëkk ñu fi faal dañuy rootoog sanda fees nga ñu bee dëkk ñu fi faal dañuy rootoog sanda fees nga ñu bee bis bu saa taxawee jëfay seede borom ñaq leen jëriñoo ñaqi reerul boro gi géej ba sa géej koo fal lay wuyoo gi géej gannaaw géej koo fal lay wuyoo tama laay nanum góor saa yi diine góor yëngoo ku sa maam xaram réew fu neex fal di lëmbe sañ nga noo jàpp yeew fal di maye bismillaay ndongay door jam day tàggu borom aborija laa ilaaha illalla yaa rab ilaaha illalla aborija laa ilaaha illalla yaa rab ilaaha illalla laa ba mi ma moo tax nga mel ni saxaar kuy nar a dem na fa jaar kuy naani paas na seeti gaar bam ba bum nag ba naan naka pexe ndëgam da ngaa xeebi sa paas waaye wate yaa nga fa gaara seetal ma si sa xiyaas am looy joxe bàyyi saxaar doomay wate ku xam le yàlla du fi teg ku sama te jël ca taw bex bexi Cheikh Bamba tawlo Moustapha Cheikh Ibra Fall taw bay Moustapha diggante mër wat safa kuy aju war fa dox Cheikh Bamba am nam faddulu Cheikh Ibra ca dem lekk ba suul gisal ma koy togg joxe Cheikh Bamba am na Abdoulaye Cheikh Ibra Fall am na Abdoulaye Fall Ndar Abdou mu nekk man da waaye bul weddi cee ba koy texe yàlla nan aw seen tànki bàyyi ba mujj doon seeni bàyyi ba mujj boole seeni gaay amin ndax ñëppay texe Cheikh Ibra dem na wàcc na lu ma sa aajo faju na ba xëy na ñi ba arjana nan farlu tey indi joxe kenn mos la gis sa sama booy daawu daw ku koy mos loo ko jooy moo jara way te jara jooy ci àdduna mën a naxee déglul ma limal la ay ndamam ba gaay yi deloo xam ay mbiram ba xol yi bëgg ba dellu gëm léegi ragal yox yox jaaraama ndey sëy na mu njaay la soxna jaara yor di jaay yaak musal waay ñare njaay saw nga ñoro nay taxe diggante njukke ak njamati dan daan dajay naanu biteel yaa tax ñu jébalu sa teel faal njege yaari pexe mbul ak sàq ko si soli buur yaa tax ba jëne defe lay toxul nga pour mën daa toxe doone dammeeli fi nawoon yaa dama mir mën a yoroon tey ñëpp ñëpp ngi fi ñun kenn amatu fexe yaa yabu mbaaxaan jox ko yaa tax ba xol ba fuur yaa tax mu sànni yotu nguur fab yëtu ngam ñi laaj pexe te xam a Abdoulaye xaar taxaw ji bunti dafa xaar waaye fu li bay lekk daxaar ngir sapp bamba mi jaxe te xam ne moo doonoon doom buur lu ma sa wax ñu daal di buur la dalay maakal ba kajoor moo amoon seen i pexe yaa tax ba soxna Penda Fall ak gën ci réeki laala Fall gën doomi soxna yi fi taal dina juri ju ñu doxe te xam ne seen i bàyyi moom feedar ba taalugul konoom ku ma saamana ku ma saana fekk ay joomanoom xolom ba daawr yox yoxi yaa tax ba Abdoulaye ñaqib lam bi ndigal far na ko la gaañi giir moo cap tabax na ay kër du joxe te xam ne mat naa dox fi moom tey ji mu mat sëkk boromam nga denc doomam dib gorom lii doy na xaar baax day pexe Cheikh Ibra Fall xamul morom sàkk na mbëri roy te moom leeral la ilaha illallah ba la da ko doomi jaara may leeral na bokk jaara tey way kaw da Cheikh Samba jaara may moo tax dënam bay bex la ilaha illallah ndand Fall jàpp fa doomi ngoon a Fall daf ko ñu lambul ñu taal tey ngir ngi neew leeram nga sar bay ak ci ku ñëw mu duy la ba nga fees lu ñu ku ñuul ak su xees ñëpp ay booba fa ngay yi te gëlëm kenn xamantu kuy sëriñam ku ne ni nga daal di dem xaddina sépp yi jax-jax yi mu daal di ngoy ci Moustapha ngir xam ne yor na li safa mag ñëpp dem moom mën dafa mës la toxoo koy yoxe la ilaha illallah bokkay na wujj ab sangam Touba la tegoon añam Bamba ko jiitaloo ñooñam diggante bépp gàgguy tax la ilaha illallah ma ngay jon ak tooli dërëm mi ñun bëgg junni dërëm gis na lu weesu même itam xam na room la noonu fexe la ilaha illallah xalu na koy ngërëm ridwaan tijil na koy këram góoloo ay ni yaa ngi fi itam gis na raw yoon jaxe ngërëm la yonen bay gërëm Ababacar ma jëkk gëm la Seexu Bamba bay gërëm Seex Ibra Faal mooy ñëkk a texe la ilaha illallah médaille ba yonen bay takkal Ababacar ngir déggal la Seexu Bamba Mbaam Bay takkal Cheikh Ibra Fall bi sub taxe Allahu la ilaha illa Allah man tabeeran bay salal Ababakar meer pare sol jël la ilaha illa Allah Moussa Lawi wala fal di sàkkuy ngërëm yàlla na ko Cheikh Bamba ful te boole ko gaay yi dëggal yoo xam ne kenn subhaana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salaamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin ah. ñun gëmuñu bëgguñu moo doonoon jàmbari sëñ Bamba moo doonoon jàmbari sëñ Bamba ji joxe jëf ak ñaq ak ñuqi joxe ak bernde kon dañuy ñaan mbooloom njabootu maam Cheikh Fall gépp rek yàlla na suñu borom yàlla yàggal leen fi di ñaan Cheikh Mountakha Bassirou yàlla na ko fi yàlla yàggal sëñ am ni Modou na ko fi yàlla yàggal kii fere sama càmm moom mooy sëñ Dëcce mu sëriñ Cheikh Mounda Fall man maay Cheikh Diagne dongob Cheikh Mounda Fall di ñaan sëriñ Cheikh Mounda Fall yàlla na fi yàgg lool te ànd ak wér ci ndigal rek lan fi ñëwee barab maam Sali Fall. dara bakkan bu bakkan boo xam bu fekkee mooy tax nit yeggal si yàlla nee na ku ko xam nag ma ko xamal man da xaw ma ko faal nee na deret dañ koy maye waaye ñaq dañ koy jaay laay laay laa bi si kër safara niiraan ba bañ ko safara niiraan ba moo ko fay moo fay safara niiraan ba mi lu laata ban daan jàmm moo ko moo ko daaneel moo dàq jinne ya moo tëye asamaan tax suuf mu taw a bonk moo waral yàlla yërëm aadama ak awa moo waral yàlla di yërëm jaam yi ci barka muhammad rasulullahi yar ñu yiir ñu te bu ñu réew te bu ñu beew te def suñu poos allahumma salli ala safante rootina ay sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina ñu jóg di way sang be safante rootina sunu deret yëngootina sunu sidit yëngootina bu ñu jóg di way sang be